bismillah fii nii ak daara yàllaaw sali baqa abi bi fiq yàllaaw yaa man lawal amru yaa man laa sharika lahu wasi wa ma liwaat li fiq yàllaaw ngi ñaan sëñ Muntaxa Mbàkke yàgg fi lool ci wér ba lim bëgg a liggéeyal maam Xaadimu Rasul lépp suñ borom defal ko ko defal ko bépp taalibe ñi ngi ñaanal sëñ Alaaji Fallilu xalifa sëriñ Afiya so suñ boroom yàggal ko fi loolu wérali cëram di dalal suñ gan gu tedd gi nga xam ne ci ci ci këram la ñëw muy sëriñ Fallu mii kër maamam la ñëw këram la ñëw ñi ngi koy dalal ak délégation bi mu àndal yëpp di ko wax ahlan wa sahlan marhaban bikum ñu ngi lay dalal di la siyaare di la tatagal di ñaan suñ borom li nga fiy sàkku ak li nga fiy wut lépp ci barkeb sëñ Afe suñ borom defal la ko defal ko. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu te di la ziyaare ci sunu kàddu ak kàddu mbooloo mi ñu àndal yëpp muy ñi teew fii ak ñi teewul te bokk ci mbooloom mi te ñu mën ci lépp di sa njaboot. ñu ko waxee dañoo nekk ci jamono joo xam ne dañuy waajal taxawal fukkeel ak ñeent. assemblée nationale bi Sénégal amee république ak léegi bi ñu tolloo di ko waajal ñu tànn ay nit dugal leen ci ab liste ngir ñu jóg dagaani baatu askan wi bu dee lu ci yitteel waa Touba dañ naan département de Mbacké ñu jël Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma ak Makhtar Diop yóbbu leen liste nationale bu dee fii ci département bi ñu jël liste bi dugal ma ci dugal ci Mouhamed Cissé ak Cheikh Bara Gueye ak soxna suñu naan Marème Ndiaye madame Diallo ak Roqeyu Diouf ñoo ñiit am na ñuñ toftal ci seen gannaaw ñu leen di wooye suppléant ci góor ak suppléant ci jigéen ak mbooleem responsable yi ñu fi àndal ñëw li ñu indi fii nag mooy sàkku ñaan kenn ku ci nekk xam na ni ab jullit ñaan mooy ngànnaayam ñu war a ñëw ci ëtt bii nga xam ne ëttub sëriñ Afi bu solo waaye mën nañ ne ëttub Cheikhul Khadim mën nañ ne sëriñ Falilu la ndax kenn ku ci nekk xam na li sëriñ Afi digganteem ak sëriñ Falilu kon loolu war naa tax nun ñu yëkkati sunuy tànk ñëw fii sàkku si ñaan war fee ñëwit sàkku si ñaan ci sa jëmm ju tedd ji waaye rawatina ci sa njabootu bopp gi nga xam ne kenn ku ci nekk am na lu dox sunu diggante ak ñoom ñuy sunu ay kilifa sunu ay rakk nekk ci biir sunu ay mag nekk ci biir ak sunuy nijaay kon la waxoon ci njëlbeen ga ne la sag njaboot ñoo ñëw ci yow ngir ziyaare si la ngir sàkkuñaan ñaan li ñuy sàkku lan la mooy boobu ba léegi tooguñu ci luy bëgg a mat ñaari weer ci liñ naan pré campagne ba dugg ci campagne bi tollu tey daanaka ci fukki fan yu njëkk yi li ñu tax a jóg weesuwul mooy loolee ñuy taxawal mbooloo mi ñu àndal muy Benno Bokk Yaakaar ci njiitu son excellence président Macky Sall ñu bëgg bu ñu yàlla yóbboo ci fanweeri fan ak benn ci weer yu ñu nekk ñu mën a am majorité à l'Assemblée nationale ci biir majorité boobu nag Touba. am lu yaatu loo xamante da koy représenté ci loolu ndax ni ndakaaru toll am juróom-ñaari député ni la département de Mbacké toll am juróom-ñaar kon am na dayoo gannaaw dayo wi yàlla suñu borom jox sëriñ bi ak dëkk bi buñ ci mosaan toll nag dañuy jóg seeti kilifa yi ñu ñëw fi sëriñ bi ngir sàkku ñaan nga ñaanal ñu ndax Touba dafa am lu yaatu lu muy représenté ci réew mi ñu am ndam ci dëkk bi ren day dimbale nguur gi mais day dimbale liggéeyu chef d'état ndax fi Touba toll ci moom ak taxawaay yi nga xam ne am na ko ci dëkk bi mel na ne ay jëfam yi nga xamante ni jot na koo jëf bi mu fi nekkee 2012 ak léegi ci dëkk bi yàlla dogal na mën nañ cee lim yu baree baree bari bu dee ci wàllu yoon mel na ni jóge ndakaaru ñëw Touba ñu naan ko Ila Touba firnde ci mel na ni lii mu jot def ci biir dëkk bi ba mu paree ba ñu inauguré ko firnde ci waaye rawatina lii nga xam ne toll na ci fukki kilomètre ak ñett mu tàmbalee xaayare ci buntu kër Serigne Modou Bousso Dieng wër dëkk bi ba dellu si fa te yaakaar naa ne du yàgg incha allah dana pare hôpital bii ñuy fajoo te bu yàggul mu ñëw fi ubbi ko ñu tuddi ko Cheikhul Khadim firnde la ci liggéey yooyu boo demee ci hôpital bee nga xam ne murid ci ndigalal Cheikh Saalix ñu ngi ñaan yàlla suñu borom loolu yërmande ak leer ci moom taasu ci barkeem ñoo dajale seen am-am ak seen mën-mën muy addiye ñu defaloon ko Cheikhul Khadim ca jannatu ñu naan ko hôpital Matlaboul Fawzeyni sumb na fa liggéey boo xam ne jàpp naa ne du yàgg mu liggéey ba sont ba ñu tàmbali koo jariñoo lañu ñu xayma rek def nañ ko ci liggéey ba ëpp na lépp luñ mës a def ci hôpital ba loolu doy na ci bu dee ci mbirum ndox mi ci dëkk bi jàpp naa ne li mu fi def ci ay forage lim bi jéggi na day wa te taxul mu bàyyi loola yooyu yëpp nag ma jot lim boo ko boolee ak ngërëm li nga xam ne ak cant gi sang bu baax bi fi nekk di Serigne Mouhamadoul Mountakha ñuy ñaan tey sàkku nga ñaanal ko ak mbooloo mi fi teew sunu borom gën koo yàggal te gën koo wéral mu gën a mën a taxaw liggéey Cheikhul Khadim bi te nu ànd ko ak moom ngërëm li mu ko ngërëm bërki démb te tàmbali woon ko bu yàgg weesuwul lu mu taxaw ci liggéeyu Serigne Touba bi mu yor wax ak naa moom ba yegg ci xamal ko ne ko sa sa yitte Serigne bi laa koy tawat te it Serigne bi laa lay dénk kon mel na ne yoon wi nu nekk ku fi mosaan xëy nekk ca tool ya wala nga takk sa laxasaay foo ko takkee bu la sëriñ bi mosaan gërëm danga jël bis boobee sax def ko ak màggal moom nag ngërëm loolu yi ko sëriñ bi gërëm ak jif yi mu jëf ci dëkk bi te ñu tegal ci suñu bopp suñu bët gannaaw bu ñu amee ndigal ci sëriñ bi ci jàppale ko ci liggéey bi mu nekk muy ñun ñu ànd ñëpp euh, dafay jaadu ci ñun ñu yeggale li nga xamante ni mooy yitte ji ñu gën a am mooy bu ñu yeggee ci fanweeri fan ak benn Touba gii ñu am fi ndam loo xam ne mosu fee am ba politique tàmbalee ba tey waaye moom it mu yëge ci ne amee na fi loo xam ne ren am na lu tax mu am ko te loolu dara génnu leen ci kon sëriñ bi ñu ngi sàkku ñaan googu mu jëm ci moom son excellence président Macky Sall ngeen ñaanalal nu ko ndax li ñu nekk mooy njiit li sunu borom sàmm ko te defal ko tawféex ba réew mii mu yore. li mu ciy def mu mën ci am ngërëmal sunu borom waaye mu mën cee taxawu sénégalais bañ gisul ko seen bopp soxna si toog ci sawet taxawaayam it des na la ko yeggee ndax li ñuy def jigéen ñi dañ cee am solo mooy ñoom mën nañ lu bari lu góor ñi mënut te yor na mbooloo moo xam ne ànd na ak mbooloo ma indi leen ba fa ñu nekk di fa daje di waxtaan di nos lan moo ko fa indi weesuwul xam li nu séq ak kër gi ndax kër gi mooy sunu lépp kër gi moo nu yilif sunu lépp fii la mu yëkkati mbooloo ma mu àndal ñëw indi leen xamal ñu ne lépp loo xamante ni luy tax liggéey bi aw yoon wala luy tax li ñu bëgg nu am ko amu ci guddi amu ci bëccëg te ba mu ko waxee ba tey ci loole la nekk kon daal sëriñ bi ñoo ngi tënk foofu suñu ay kàddu sëriñ Fallou ñu ngi lay nuyu ci turu sëriñ bi di jottali ay kàddoom di tàmbalee ci nuyoo bi tamit ngir eh, nuyoole la sëriñ bi di Cheikh Mouhamadul Fadal moom sëriñ Cheikh Fatikan moom sëriñ Afia moom mi nga xam ne moo fi jëmmi sëriñ Afia tey mi ngi lay nuyu di la nuyoole tamit kilifa yi nga xam ne ñëw nañ teew fii ngir teertu si la yaag mbooloo mi ngi àndal gannaaw loolu it sëriñ bi nee na mi ngi sant ci jéego yi nga yëkkati ngir ñëw fii ci bustaanul arifin nga xam ne barab la ci barab bi sëriñ Touba yi nga xam ne sëriñ bi moo digaloon sëriñ Afia mu nekk fi ñu mujj a gisee jëmmam fii tamit ñu denc ko fi mu nekk fi kon su fekkee ne ñëw nga ci barab boo xam ne sa sa barab la ndax wax nga ko léegi sëriñ Afia ak soxna Awa Bousso mii waajur sëñ Fallou ñoo bokk lépp sëriñ Bousso be di waajuram sëñ Bousso beeg soxna Jaara bokk lépp. mu wëlbatiku ko loolu lépp mu teg ko ne jaay ak njureelam jënde ko ak taalibe doon taalibe Serigne Touba boo xam ne dafa bokk ci ñim àndaloon sanc dëkk bi ànd ak ñoom dem Mbàkke Bari ba sëriñ bi gërëm ko defal ko loo xam ne tamit euh, ràññiku na lool ci ngërëm loo xam ne ëllëg la ko ko digoon kon li fiy feeñ yaakaar naa lu rogalaat lay doon yow nag sa diggante ak bokki mbusoo ba yi lay lay tàmbalee yow sëñ Fallou rafetal nga ko lool ndax fale sa kër am na bis boo xam ne danga nga koo jagleel rek njabootuk sëriñ bu soobe gi ngir di leen di leen di leen teeru di leen berndeel nga am cofeel tamit lool ci mag yi bu yi am ko tamit ci suñu kilifa gi amoon ko tamit ci suñuy waajur moo xam sëñ Cerno mi fi mujj ci suñuy waajur ak suñu waajur yu jiitu yëpp loolu it ñun ñi nga xam ne nekk nañ fi ràññee nañ loolu xam ko kon loolu sa diggante ak ñun ak kër gi du tey kon su fekkee président de la république tamit tànn na la jiital la ngir am lu muy wut nga xam ne fii ni mu demee ci yoon wi ak ni mu demee ci dëkk bi nga bokk boole ko ci fi nga xam ne war nga fee ñëw ngir sàkku si fi ñaan jëflante it ak njaboot gi fi nekk sëriñ bi nee na loolu rafetlu na ko te sant na ci gërëm na ci mu ngi la ciy ñaanal tamit barab bii nag nee na barabu ñaan la ñëwoon nga fi ci lu mel nii loola nee na la la nga fi amee woon xam nga ko kon it loola mi ngi lay bàyyeeg boroom barab bi la ngay ñaan la ngay fas nee na nga fas ko ci barab bi mu ngi lay bàyyeeg borom barab bi. li ci des moom nee na njaboot gi fi nekk sa diggante ak ñoom ñi ngi noonu noo jëflante ak ñoom ni nga ko waxee léegi ci soxna Daba ak nu ñu yow loola moom nee na bàyyee na ko ci seen diggante waaye li nga xam ne moom moom la am. njaboot gi am ko nga xam ne liñ leen bàyyee muy seen ndono muy jàng ak jàngale ak jumaa yi ak jàkka yi ak ñaan loolu nga fi sàkk moom incha allah dina la ko dina la ko defal muy ñaanal la. li nga xam ne moom ngay wut te bëgg ko yaa xam yaa ko xam sunu borom defal la ko kàddu yooyu daal muy gudd muy gàtt loolu la waxoon ne nañu la ko jottali